ak fayuk tooñ ak jullit ni mu war a wattandikoo tooñ ak fayu ak tooñ donte fayuk tooñ dagan na waaye bañ a fayu dafa gën yonent bi sallallahu alayhi wa dafa waxoon ci benn xadis ne az-zulmu zulumaatun yawmal qiyaama tooñ de ay lëndam lëndam la ëllëg yawmal qiyaama ci ki koy def ab jullit nag lépp lu koy andil luy lëndam ëllëg war na ko wattandiku tey te ndegam sunu borom tabaraka wa taala mi nu bind sàkkunu moom nu te bokkuñu kenn moo araamal tooñ ci jëmi boppam araamal ko ci ci sunu diggante kon war nañ koy wattandiko te sunu borom day wax ci alquran ne lu ngeen def ci lu baax yéen ko moom lu ngeen def ci safaan it eh, ko def waaye sunu borom moom du tooñ ay jaamam bu demee ci suuratu Fussilat aaye ñeent fukk ak juróom-benn sunu borom dafay wax ne. man amila salihan fa li nafsihi wa man asaa fa alayha wa ma rabbuka bi zallamin lil abid kon sun borom du tooñ ay jaamam Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne itam ku déggoon alquran la mas naa woo mag ñi tombal leen ñeenti tomb ne leen na ngeen wattandiku ak tooñ ndax dana waral ñeenti yi dal ne tooñ dana xañe jubalug yàlla ndax yàlla moo ne laa yahdil qawma zalimin dana xañal ndimbalul yàlla ndax suñu borom moo ne wama lil zalimina min ansor dana xaña uh, soppug yàlla ndax suñu borom moo ne wallahu la yuhibbu zalimin dana waral mbugalug yàlla ndax suñu borom moo ne inna minal mujrimina muntaqimun sëriñ tubaa xaadimu rasul daana wax ne ku bëgg mucc ci yéen bu muy tooñ kuy tooñ du mucc te kenn mënu ko musal ku bëgg a noppalu ci yéen bu muy fayug tooñ kuy fayug tooñ du noppalu te kenn mënu koo noppal sëriñ tubaay daana wax ne ku dul tooñ doo fayug tooñ yaa ngi ci sangi su amul bunt saa boo tàmbalee fayu nag sàqi nga bunt sëriñ tubaay daana wax ne buñ la tooñee nga muñ suñ borom dana la fayul tooñ nga fay la muñ ga kon nga xam ne nii fayu dagan na waaye nag jéggale mooy jikkoy sang te it moo gën yonent bi sallallahu alayhi wa alihi ci xaswatu Uhud ñaareelu kareeb lislaam bañ rayee bay taxam boobu nga xam ne ni mooy Sayyiduna Hamza yonent bi keroog am na lu ko metti ba ne bu ma leen jàppee danaa rey ci yenn ab lim suñu borom ne ko déet nag bu fekkee da ngay fayu rek lu toll ni liñ la def ngay fayu kenn lañ la rayal yow kenn nga leen rayal te boo ne moo ne boo jéggale woon de moo gën ci yow moom la sunu borom di wax ci alquran ne wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bi wala in sawartum la huwa xayrun lissabirin yonente bi daal ne kon man muñ naa sëñ tubaay daana wax ne man ne ñett laa seq ak sama boroom ñett laa seq ak samay moroom yi mbindeef daana li ma seq ak sama borom mooy lum ma digal ma def ko lum ma tere ma bàyyi ko lum dogal mu neex ma li ma seq ak sama morom mbindeef mooy duma leen tooñ te ku ma tooñ ma jéggal ko te lu ma am bokk kook ñoom moo tax sëriñ Moussa ko ne ko Cheikh Bamba yaanu mat boroom fekkoo ci àdduna moroom tooñoo boroom tooñoo moroom tinul nu tooñi xarnu bi sëriñ Tuubaa daana wax ne bu leen di tooñ te dee leen jéggale tooñ bu ngeen gisee ma digal leen ko nag dama cee jaar ba jàll ndax li ma mos ci bañ a tooñ ak jéggale tooñ tax na ma dappetoo ko moo tax ànd ak li ko noon yi def lépp li muy metti te yàgg fa mu mujj ñoom mooy jéggal naa leen ngir yàlla mi dox sama diggante ak ñoom afawtu an il aadaayi turran li wàcc man nafaahum li xayri sarmadan lastu adfaaw yëmut sax ci jéggale kese waaye jéggale gi dafa sedd xolam afawtu li wàccillaahi maxsaf bi kalkali kon kooku képp ku koy tuddoo wala nga di ko wuyoo wala nga roy ci moom war nga koo niru ci bañ tooñ ak jéggale tooñ te it loolu la defoon ci ñim yaroon am na ko ñuy wax sëñ Mahmoud Mbegere ci ñim yaroon la bokk mas naa jóg di ko seeti gànnaar ba mu demee ba roosu ñu kar ko fa ay mm, ay dog ay dogikat bëgg ko ayibal ba xaw ko bëgg gaañ te booba yor na ngànnaay waaye waaye génnewu ko ba mu àggee gànnaar ba wax ko sëriñ bi sëriñ bi ne ko xanaa yoroo woon loo fegoo mu ne ax akay mbàkkee waaye def nga ci ñun loo xam ne nii te digal nga ñuy bañ a tooñ tey bañ fayu tooñ tax na jotuma génn nga naay li ma dencoon kon ñoom jikko yooyu moo nekkoon ci ñoom te ñu war nañu leen caa roy Sëriñ Tuubaa daana wax ne noon yi de bi ma nekkee ñoom lépp dama doon jihaat ci mbind yi waaye nag jihaat gi ba ma demee ba xam ne mag leen di lor dama ko bàyyi te bu ma ko bàyyiwutoon ñoom ñëpp danañ dee ci mbas waaye jéggal naa leen ngir jëmmi yàlla jaaxatu bil xatti sinina wax de man lam yakun mu wax idan za jaxdi bil xatti jaaxatu aduwallahi ashrata ahwaamin bi dikrillahi law annani lam atrukil kitaaba mujahidan biha tawil itaaba lamaata bil wabayi kullu kaafiri illam yatuubu lil ilahi lxaafiri lakin afawtu an jamihi nnaasi li washbaaxin muhlikin qannaasi xikma nag day tànku yaa koy tënki ngir jariñoo ca rajo day sekki